ngir gëna mëna mën jot ay vidéo xibaar abonnel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu les notifications. waaw tout d'abord ñun avant ñuy commencer wax dëgg yàlla dañuy remercier presse bi remercier presse bi seen teewaay chaque jour bu ñu leen woowee vraiment ak seen disponibilité. parce que 2016 ba léegi defe naa ni ñoom ay impacté nañ sax laa leen mën a tuddee parce que wax dëgg yàlla boo leen woo ñu ngi ñëw taxaw pour.

dañ ko perte xalé yi jàngatuñu parce que amatuñu non seulement les moyens jang mais fiñu ñu dëkk léegi dafa enclavé amna ñi nga xamni ni dañoo amoon kër ñu tuddee ay propriétaires de maison léegi ils sont devenus des locataires nekkatuñu ay borom kër légui ay locataires nañ doon té kenn tegu ko lu projet état du Sénégal donc duma jéxal duma wax loolu té wax dëgg yàlla sama xel demu ci nit ñi nga xamni tay ji ñi ngi won fi ak ñun di dund daaw sax ñi ngi won ak ñun

les journalistes disent yi di wax affaire yi avancé wul parce que l'État a war jox ay prime d'accompagnement social parce que l'État état jox ay prime de vulnérabilité ay perte de revenus locatifs. yi nga xam ne tey jii ñu seen six mois nous koy fait. ñu fay leen ko ba léegi mënuñu jot xaalis boobu ñi dee déetawaay ab état bi jox ñu 40 hectares sur l'agrose. L'agrose Lac Rose jox au lieu que état bi euh, aménagé ko mu gaaw parce qu'il dafa ne woon 2021

dina fexe ba ñu jox ñu ay titre foncier individuel jox ko non seulement impacté première phase bi jox ko impacté deuxième phase bi jox ko en même temps les déplacer de l'autre à péage apix feulé ñu jox leen ay titre foncier individuel, parce que ñoon tamit ay victimes nañ mais ñu gis ni ba légui affaire bobu yembagul parce que wax deug yalla ci site ba bo fa démé tay ji amna 14 hectares yi nga xamni état bi war na ko libérer mais mënu fexe ba libérer ko parce que comme quoi que am ay poulay fa nek parce que ay descos amaguñu temps pour déplacer wu ñëw fofu loolu nak dañuy né loolu ñak ñak ki la ñàkk euh, volonté la ci de la part de l'État pour jéem libérer 14 hectares parce que ñun mënuñu concevoir état bi libéré de Dakar à Diamniadio en un temps record mënul libérer 14 hectares sur Lac Rose loolu mënuñu ko concevoir donc état bi daf ñoo yap ci impact terre bi ñu lancer un appel au président de la république moom waxoon na fi dina régler suñu problème dina jël suñu problème en main de conseil des ministres la wax ci affaire impacté terre bi chaque jour bu waxé yaakar juddu wat. ne leen mais ba légui ba furaas dara doxul dara avancé wul C'est suñu problème donc ñukoy lancer un appel vraiment à son premier ministre bu bees bi di door ñew muy Amadou Baldé ah kii Amadou Ba mu jéem jël la chose en main mu jéem régler problème impacté terre bi parce que famille yi sonn nañ xalé yi dematuñu école jigéen ñi perte nañ seen euh, source de revenu donc loolu d'Al ñi koy lancer un appel à ces euh, autorités là ñu régler le problème le plus rapidement possible waaw waaw amagul kenn ku jotagum ce titre de propriété parce que ñom dañ ko waxoon en réunion pour ñun bu déssé lu du mot un mois sax xëy na ñu commencé distribuer loolu mais distribuer wuñ ko joxeeguñ ko ba légui ñi ngi tok di xaar di xaar suñu titre de propriété muy ay titre foncier individuel nañu bëgg encore une fois te si 14 hectares nous ñu war libérer nous mu gën parce que ñun mënuñu concevoir depuis presque ay ay 14 euh, hectares 14 hectares mënuñu fexe ba libérer que te nga libérer tout ce tout ce monde là qui dans le cadre du projet terre, loolu vraiment paradoxe la loolu voilà plan d'action bi nag mooy dañuy continuer suñu terre terre, bi waxuñu terre comme train express régional mais terre comme tournée d'action radicale dañ koy continuer te dinañ ko détailler dans les jours à venir avant élection la campagne a commencé. commencer impact terre, nous ñu ngi leen di woo manifestation yi ñu d'une manière ba nga parce que ba nous fi nous sommes des légalistes lépp ñu ngi ko teg ci temps ñu ngi ko ci yoon tamit donc li ñu état mooy na régler suñu problème le plus rapidement possible avant que ay dégâts di am ci duñ parce que nous nous avons été conciliants avec l'État les li nga une suñu obligation la lépp li nga xam ne tey suñu wareef la ñun impacté yi def nañ ko état moo ñu desal état moo ñu fekk toj suñu kër ñun jaay ñu suñu kër état moo ñu fekk ne dinañu dig def di jël ay engagement ferme et pas état moo respecté wul engagement donc c'est à l'état de régler le problème définitivement au moins nit ñi mën nek ci jamm parce que mënuñu 2017 ba légui ñuy wax la même chose 2017 ba légui ñuy joy 2017 ba légui nit ñi di wàññeeku té conséquences yaa ngi nii donc lool vraiment nous tenons à le dire voilà merci. ngir gëna mëna mën jot ay vidéo xibar abonnel ci chaîne YouTube bu info TV nga daal di bëss li nga xamni ne di cloche bi ngir mëna